salaamaaleykum mbokk internet yu IYAT TV nuyu nañ leen euh, niñ koy defee jamono bu nekk rek di ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne dañ koy def jamono bu nekk di seeti borom xam yi ñi nga xam ne xam nañ ci euh, wàllum politique waaye tamit euh, xam nañ am nañ xam-xam ci wàllum société di waxtaan ak ñoom ñu di ñu gën a jàngatal mbir yi jamono bu nekk ak ni muy demee tey ñu jàkkaarloo ki nga xam ne miin ngeen ko muy sëñ musa Diakhaté dañ koy bàyyi mu nuyoo su ko defee ñu dugg ci biir waxtaan bi bisimilah sëñ Moussa. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Fallou ñu ngi leen nuyu rabbi saxli sadri waaye yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli hmm. ñoo ngi nuyu sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel. Hmm. di ñuy seetaan ci site bi ñu wax IYAT Euh, di ñaan yàlla yàlla nañ fi luñ fi wax rek yàlla nekk njariñoo réew mi ndax ñun dañoo bëgg réew mi réew mi rek mooy suñu itte <coughs> kon jàpp naa ni lu ñu fi wax rek yàlla na nekk loo xamante ni njariñu réew mi lay doon hmm. lépp tegu ci dëgg hmm. Hmm. Euh, sëñ Moussa ñëw rek ci li nga xam ne moom mooy actualité nationale fan yi xam na gëj nañu euh, waxtaan ak yow waaye semaine bi li ci xew bari na euh, tamit euh, muy lu aaja ab njàngat mu yaatu lu ci mel ni euh, coow li fi xewoon ci atte boo xam ne jàppoon nañ ko le 16 le 16 boobu ñu reporté ko waaye terewul amoon na ay jàppante foofu la ca Ziguinchor ñu gisoon tamit convoi boo xam ne convoi wu pour takk der yi la ñu demoon fële ca Ziguinchor ñu bari doon wax na ñu ngi jéem a jàpp Ousmane Sonko ndaka nga gisee Euh, mbir moomu nga xam ne xewoon na fi ci semaine bi ñu génn. jërëjëf sëñ Fallou <coughs> président Ousmane Sonko dem gi mu dellu Ziguinchor. Ah. loolu jàngat bi ma ci am dama koy rafetlu. Hmm. li tax mooy bu fekkente ni am réew danga nga faa nekk dañuy wax ni euh, am loo bëgg. Hmm. Euh, fa nga dëkk. nga hmm. xam ne fa lañ la fal mairie. waaw ah. sa waajur wu jigéen nekk fa. sa wajuru góor donte làqu na nekk fa nga delluwaat foofa jàpp naa ne loolu yoon la li indi itam delluwaat gi mooy ginnaaw moom bi mu nekkee fii dakaar gis nañu ni jox nañ ko fi plainte mu wuy ji muy jaar muy dem ñu jaar fekk dab ko ci yoon wa toj mm. paara birisam génne ko yóbbu ko yooyu yëpp mu nekk ay jàngat yoo xam ne état bi day war a ne dañuy war a bu bëggee jàngat bu bëggee jàpp Ousmane Sonko war na ko mën a jàpp. Hmm. waaye gis naa ni Ziguinchor wala. mooy dossier aji Sarr bi dossier bi jàdd yoon gi ba mu amee. Hmm. mooy ba nga xamante ni xool nañ ko ba capitaine Touré mi nga xam ni moom lañ ko joxoon mu koy xool. Hmm. mu dem ba gis ni complété mi ngi ci am muy topp complété bi ñu ne ko taxawal. certificat médical bi nga xam ne moom mas a setal mboolem koo xam ni dañu ni dafa violé daal di weddi ni viol amu fa ah. daal ni wax ni sax nang vingt quatre heures yi xaw ma quarante huit heures yi euh, sequ feeg jigéen dara sequ feeg góor dara moom sonn soosu di aji hmm. ñu demati yemul ci loolu itam euh, ndaw soosu nga xam ni mooy aji sar ñu fekk ko ci salon bi nga xam ne fi la fi la doon defee loolu am ku ko jël si ci oto. Hmm. ñu tudd kooko ñu ko tudd ci politique. lettre bi nga xam ni moom la bind mooy parent bi mu nekk mbind moo xam ni borom xam-xam moo ko bind. ñu ci hmm. tudd soxna soosu di soxna ministre de l'intérieur. Hmm. muy muy joor euh, Diagne. yooyu yëpp nekk loo xamante ni léegi bu fekkente ni am réew nag li tax ak maandu man faa am li tax ñu mën a dund ci dal faw respecté na da ci am. Hmm. respecté gi nag mooy mooy kenn ku ne fi sa aq yam fi la sa aqi moroom tàmbalee hmm. Ousmane sonk nag ab sénégalais la du doxandéem am droit laaj réew mi comme ni ko ñu ko fi jiitu amee droit laaj hmm. su koy ñàkk askan wi ñoo ko war a jox ñoo ko war a xañ waaye bëgg sukkandiku ci problème boo xamante ni lépp politique la ngir éliminer sa adversaire loolu mënta nekk jàpp ma ne askan wi dañ ko ci bàyyi ndax ñi nga xam ne ñoo bëgg a éliminer sonk ay mineurs lañu ñu néew lañu. Hmm. te xam nañu ni bu demee élection day gagné. Hmm. léegi nag li jaadu mooy li li yoon mooy euh, moom mi wërta bokk moom président Macky Sall hmm. mu génn xelam ci bokk. xëy na sax man naa am génn na xelam ci bokk waaye bu mu jéem a imposé Ousmane Sonko ni ko daw bokk. loolu moom mën naa taal am réew. ndax cofeel kenn ku ne kenn ku ne ka am cofeel respect dañ laa war a jox respect ci loolu. Hmm. Ousmane Sonko nag bu fekkente ni dafa jàng ak njubam maye ko ñu bëgg ko éliminer lii loolu patriote yi yëpp ma ni duñ ko dañ ko dañ ko nangu. kon hmm. dellu gi mu dellu Ziguinchor Ziguinchor recevoir ko résister taxaw jàkkaarloo nguur gi bañ cee bañ dara lu ma rafetlu la. Hmm. lu ma rafetlu ndax dañuy wax ni euh, ay nit bu fekkee ni dañoo àndul ci xam-xam. ñu ci nite ñu ci dal ñu ci li nga xam ne moo war a am mooy yoon la ñuy ànd mooy ci doole la ñuy ànd mm. doole nag fa nga gën a yaakaar ni fa nga ëppee doole ah. delluwaat ci say bokk delluwaat ci sa bopp jàpp naa ne loolu lu lu lu ma lu war a nekk la te Ziguinchor ni ci taxawee rafetlu na rafetlu naa ko lool mm. loolu nga xam ne nag moom lañ wax ni Pape Djibril Fall foofu bëgguma ñu dugg fa ba bëgguma ñu dugg fa dama bëgg ñu des ci mbiru Ousmane Sonko ba léegi rek hmm. euh, euh, tey euh, projet boobu nga xam ne añ nañ ko ñu ngi ko war a àtte le 23 muy ginnaaw suba nekk mardi ndax da ngaa jàpp ne wala boog sax dama naan ndax Ousmane Sonko warul dem ci projet boobu hmm. ngir ñu àtte ko bu fekkee liñ koy jiiñ te moom mooy wax ne complot la ngir ñu man koo seetal ci lu mel noonu bu fekkee ne liñ koy jëñ defu ko. waaw xam nga Ousmane Sonko bu fekkoonte ne yoon mi ngi dox normal. Ah. li mu war a def mooy dafa waroon a wuy ji waaye nag day fekk yoon am te Ousmane Sonko ba ñu wuy ji ndax woo nañ ko ba tey hmm. mu wuy ji ñi nga xam ne ñoom la séqal kenn du leen sàkkal yoon wu ñuy jaar hmm. ñooñu yoon wu leen neex la jaar mais moom bu bu buñ ko buñ ko bu ñu waree wuy ji rek ñu gis ñu ñu baare këram. Hmm. yooyu yëpp nekk loo xamante ni kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi nekk ndax aji saar doole ji mu am am na ku nekk ci ginnaawam. Hmm. am na ku nekk ci fi même aji saar sax bu nekkoon ci dëgg laa wax de. Hmm. bu newoon ci dëgg. Ousmane Sonko newul ci dëgg. problème bii ay bakkan yi ci tuuru ma ñaar fukki nit. jërëtu jëru ko. jëru ko te ñoom ñaar ñooñu nga xam ne ñoo am problème. muy Ousmane Sonko di Macky Sall. di euh, aji saar amul kenn ci ñoom ñett seen ñett ñooñu ak ak ak procureur yooyu di woo seen mm. bakkan yi gënta foor bakkan yi ciy dee mm. ay doomu aadama lañ ko ñëpp kon boo xoolee problème boo xamante ni boo ko dee saafara la muy mm. jur moo gën a metti maanaam jaarte yoon li diine sax daf laa wax ni la nga bañ koo saafara moo gën moo gisee sëñ bi dafay wax ni walay sa mufdiyan te ah. dét muy aji bijj li sarratin ñel aw ay akbar wu gën a mag li ngay tere xam nga digleeg tere dafa am i sart. waaw imaamul xasaali dafa wax ni booy digle wala ngay tere na nga jàng ba xàmme lu baax ak lu bon lu lislaam digle ak lu lislaam tere na jàng ba xàmme ko. Hmm. doog di digle wala muy tere. te ki muy digle wala moo koy tere itam na am kàttanu bu digle ñu def bu tere ñu bàyyi. Hmm. ni ki itam moom mi digle wala muy tere itam na nekk adala na nekk ku maandu. Hmm. mooy nit koo xam ne ci droit ci yoon ci lay jaar waaye su fekkee ni da nga laa teg ci kanamu ah, nga jiite am réew. Hmm. réew mi am ay sart yoo xam ne ci la ñuy tënku ñun ñëpp. Hmm. sart yooyu moo yilif président de la république moo yilif premier ministre moo yilif ministre de la justice moo yilif mbooleem koo xam ne yaa ngi ci réew mi. pour réew mi mën a nekk ci dal. fokk ñun ñëpp ñu bokk yam ci sart yooyu ay àq kenn ku ci ne la nga ca am ñu jox la ko la ñàkk ñu xam ne kiiw nga xam ne ki néew doole ak ki am doole daal ñoo war a yam ma gisee réew mi kumba am ndey ak amul ndey moo ci am ku am doole damay gis ni daal nit ñi daal booy xool day mel ni daal euh, nit ñuy dunde nii nguur gi mooy noonu nga xam ne dangay jël ab saakum ngooñ xëppal ko ak jur nag yi nga xam ne wala xar yi nga xam ne dañoo am doole mm. génn seen i bëjjën jam yi néew doole ñu génn. ñoom ñi nga xam ne ñoo am doole ñu toog di lekk. loolu te loolu nag réew mu nga xam loolu nag réew mu mu nekk bu fa jàmm jëkkee tam dafa mujj. kon dialogue mm. bi nga xam ne moom la ñu bëgg dialogue euh, boobu jàpp naa ni euh, li taxoon mu mënoon a nekk mooy kenn ci ay niti Ousmane sonk ñu bañ koo tëj waaye mënoo ni da nga jàpp nit leader plus leader boo xamante ni li ëpp ci askan moom la ñu àndal nga tëj ay nitam yëpp ba noppi. naan da ngay woote jalo ko ak ku xawma ku kiiw sa yaay ku gedd sa yaay loolu wax jooju weesale woon naa ko njiitu réew mi bëggoon naa daal mu delloo si xelam xam ne ci njëkk lañ ko joxe réew mi jotew ko ci fitna jote ko ci doole kii nga xam ne moom lay éliminer ba tax mu yebal ay nit ñu dem bëgg koo jëli ci mu mu mu bàyyi ko teg ko fi suuf teg ko fi suuf ndax bakkan yi jot a rot doy na sëkk te loolu nga gis noonu fa muy mujj mooy problème bakkan yu gën a rot rek rek lay doon. te loolu itam nag jàmm ji nag ki ko yore du kenn ku muy président de la république ndax dossier yi yëpp moo nekk ci ginnaawam. moo gisee délégation bi nga xam ne eh, sëñ Mountakha yabal na ko fa. Eh. waaw délégation boobu dañ koy junj. Hmm. ndax dañuy wax ne al isaar takfilil xaq. Hmm. borom junj jooy na boromam xel xam nga Serigne Touba bu fekkee da nga ne ab taalibe nga. Ah. ci lu baax rek nga war a dox. Hmm. ci jàmm ndax koo xam ne bi ko ay noonam sonalee. ba mu leen jekkoo daf ni jégg naa leen ñëpp xafawtu anil axda bàyyiwu ci kenn del koo xam ne dem na ba àgg naan bay wax naan yaa malikal mulki yaa man jëla an xawadin irham jami alwara din radaha hmm. irham jami alwara jooju bàyyiwul kenn mboolem luy mbindeef rek sëriñ bi daf koo ñaanal suñu boroom ak njëgal loolu nag am réew njit dëgg nag noonu la war a mel mooy nit koo xam ne day fees dell ak yërmande hmm. waaye loo xamante ni yow ci njëkk ci lañu dajalee ba dénk la loolu kilifa ku toll ni Cheikh Mouhamadoul taxa bëgg jàmm ci réew mi ndax kilifa yëpp jàpp naa ni lii seen yitte mooy jàmm ci réew mi. Mm. kon suñu yónnee ab délégation mu dem ci président Macky Sall bu ñu ko dee junj liñ koy junj na ko bàyyi xel bu baax. Mm. ndax fitna kat asaddu wala fitnatu asaddu min al xatali fitna mm. moo gën a métti rey. waaw xam Macky ak ni mu yàgg déroulé. Euh, ñu ci bari naan. Euh, buñ ko digalee li ko li mu bëgg a def lay def euh, jàpp nga ne junj bi ngay wax dina dina dina am njariñ ci seen côté ñoom dinañ ko jëfee. yaakaaruma ko. Ah. ndax su ma ko yaakaaroon damay wax ni kon ndax yaakaar gi li tax ma doon ko yaakaar mooy un immédiatement rek kon dafa waroon libéré mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso bi te nekkuñ ci yoon ndax sart tuub dafa am ay sart. Ah. nit bu fekkente ni da ngay tuub. wala nga dem ba jàpp ne da jàdd yoon li nga la la lépp lu nekkoon ak njuumte rek te nga defoon ko da nga koy da nga koy dindi. boo ko dindee ba noppi boo waxee am na am nga yéene def yéene ca kanam. daañ daañ mën a daañ mën a jàpp ni kii dina man li ma jàpp mooy président mag Sall. nattu lii nattu la boo xamante ni. waaw la boo xamante ni Sénégal. Euh, kii la ndax ni nga xam ne moom la jote réew mi ak ni ni nga xam ne li lii muy def nii réew mi lebaluñ ko loolu. lébaluñ ko loolu te man bokkoon naa ci ñi xam ne bi ñu koy néewal doole dama ko dama dama ci dama ci dama ci insisté woon moo tax hmm. moo tax euh, nii muy doxee nii euh, kiiwu ma dara bu ma sañoon daal dina delloo si xelam xam ne nguur yàlla moo koy joxe te kum ci namm bu ko jeexalee mu xam ne jeex na waaye li ma gëm te gëm ko mooy rapport de force mooy li koy lijjanti ah. ndax lu tax mooy ah. euh, dama jàpp ni nguur gi dañoo échec. ci fukki at ak ñaar yu yu ñu jiite réew mi dafa am yu bari yu fi xew. benn ki jiite réew mi bëgg naa toogaat. wa illah maanaam am na njuuj njaaj yu bari yu hmm. xew ci ñi nga xam ne ñu ngi ci ci nguur gi. te xam nañu ni Ousmane Sonko bu toogee dana càmbar loolu ndax da koo wax. léegi nag ñu xam ni kii kon bu toogee da leen di indil fitna. Hmm. ñu ne kon comme fitna ji mënta ñàkk na tàmbali. ràmbali loolu nag dialogue nag am na solo waaye war nañoo fexe ba réewum Sénégal mi képp kuñ ci falati ñu xam ne li ñu lay fal moomoo ko waaye doonu ministre boo xëyee baare télé bi dawal benn war ay oto baare télé bi kilifa goo dajal mu jàdd yooyu yëpp ay njuumte la yoo xamante ni day mel ni ak woo yi ñu lay woo sax di la nga xam ni daanaka diggante sa gàtt ñu sës ci yow wala ak yow ci boppam da daal di yor ay milliards yu bare bare bëri askan wi di dundu dund gi kii loolu day tax nit ñëpp seen xel fi ne nii mi ngi ci politique bi te dara wër la ko mooy jàkkaarloog ay nit ñoo xam ne li ngeen la ñuy lekk yéen yaag ñoom ñoo yéen a ci bokk yam mm-hmm. nga jàkkaarlook ñoom ñoo ci ay lekk te mënoo ca amoo ca pexe xam nga yi neexul. Mm-hmm. léegi nag li nga xam ne mooy tax réew mi mën a déstabilité nekk ci jàmm mooy ministre yi ak ak ak ak nguur gi ak mboolem ñu nekk ci gouvernement bi ñu gën di seetaat seenu doxin. Mm-hmm. maanaam yam ci seeni salaire. yam ci ba bañ bañ ci sàcc alal réew mi. Hmm. waaw ndax loolu loolu mooy tax loolu mooy tax bu ko defee loolu dana dana bu duggee ci askan wi dana dana waral yu baree baree bari yuy seer yoo xamante ni dana mën a wàññi ko. waaw ba tey buñ desaatee ci ba tey mbiru Ousmane Sonko rek ni ma koy waxee jamono bu nekk moom keroog bi mu génnee dégg nañ ko mu wax ne. Euh, candidature am euh, ci loxo sénégalais yi la nekk. mais nekkul ci loxo justice ndax daan nañ ko wala daanuñu ko jàpp nga ne sénégalais yi dinañ taxawu candidature Ousmane Sonko pour mu bokk. dama ne loolu mu wax mooy dëgg ndax justice mënuñoo juste lu peuple bi sise wut. peuple bi ci boppam lu juste àtte bu ci peuple bi andul du at du sotti. waaw ah. ndax peuple ay nit booy justice lu muy àtte waa peuple bi lay àtte waa peuple maanaam réew mi lay àtte réew mi muy àtte nag. Hmm. bu ñu d'accord du sotti. te xam nga président Macky Sall du moom moo war a ki bokk candidat ku bokk dul bokk. Hmm. moom loolu réew mi moomu ko dañ ko koo dénkoon. Ah. moom ñëpp ñoo ñoo ci yem. carte bi mu ci am moom la ci moroomam am. Hmm. kon du moom mooy tànn candidat kuy nekk ku du nekk hmm. damay wax ni ab ay nit maanaam kenn ab ànd li koy neexal ku baax ki da koo waxoon sëñ Saliou dafa wax ni kenn ku ne li bëggal boppam. Ah. na ko bëggal moroomam. la mu jàpp ne yeyoo na ko mu yeyeele ko moroomam na mu bëgg koy def mu koy def nit ñi. waaw ah. dégg nga sa borom bu tuddee sa ayib dalaa bëgg a ah. waaye sa morom bu tuddee sa ayib dalaa bëgg a weer xam nga ne Ousmane Sonko mii ñu bëgg wooye fee mu ñëw ci jigéen ju ñàkk solo ji. di weranteeg moom maan ko def nga léegi def nga laa loolu bëgg toroxal nit la. Hmm. bëgg bu doon dëgg sax jëru ko ndax bakkan yi ci tuwo rawatina nag bi mu nekkee loo xam ni dëgg. ndax ay askan wi ay boroomi xam-xam lañu ay boromi xel lañu. ndax fi fi fi dossier bi jaar wane na ni politique rek moo ci laxasu. loolu nag nañu delloo seen xel askan wi buñ ci bañ dara. waaw buñ ci bañ dara lu dul aw yoon bañ ko rek mooy yoon. nit ab jaam dafa war a nangu lépp lu muy def maanaam lu muy du atte bu muy attewu ak lu muy lu muy tënku na fekk yàlla gërëm looloo la. Mm. waaye loo xamante ni dañ la ko joxoon ci njëkk ci moral. nga dem ba ci biir jàpp ne li nga dénk yaa ko moom ba tax ku ànd ak yow nga làq ko ku ànd ak yow nga tëj ko loolu dafa mën day taal am réew. Hmm. day taal am réew ndax gis nañu fii ñoo xamante ni ñàkk solo ci lañ leen jàpp leen. te yooyu yëpp nag li muy signal mooy li muy si wane mooy nguur guy jeex. Hmm. nguur guy jeex. Ah. Ousmane Sonko sax bu yàlla tegoon yàlla dogaloon mu tegu fi jàpp naa ne dana jafe lool ci ni ñi nga xamante ni moom la fekk réew mi. Hmm. ni yàqu yàqu yu métti mu gouverner normal. ndax jamono ji réew mi ñi dëng dafa bari. dëng gi dafa bari. ndax boo xoolee tey ji état bi ñi nga xam ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir état bi li ñu yor ci xaalis. Mm. nga xam ne tey ji bañ giñ bañ bañ a bañ bañ bañ a naan ko président Macky Sall continuer sa troisième mandat. Mm. Macky Sall sax taxul ñuy wax seen bopp rek moo tax ñu di ko wax ak nu ñu yëwale seen dund. Mm. loolu nag dafa nekk loo xam ne dafa dem ba askan wi yëpp jot ci. ak it xam nañu ni ku jub bis bu leen wuutoo danañ am problème ndax li ñu la jël bari na. yooyu nag bu fekkee moo indi war ñu ñuy wax jolog jolog bi waroon am dafa war a nekk joloog bu sincère joloog boo xamante ni day tegu ci dëgg. kenn ku ne ñu ñu ñu ñu tàmm tànnal ñu ñu jox la sa àq ñu bàyyi nag ki nga xam ne kenn ku ne bëgg a bokk ñu bàyyi la nga bokk mais moom rek moo wut a bokk moom Macky Sall moo wut a bokk ku bëgg a bokk nañ la bàyyi nga bokk suñ demee ba dugal carte yi jot ku ëppalee ay kart ñu ñu ñu ñu tànn ko. fan yee fan yee gisoon nañ kii di barte Barthélemy Dias mu doonoon koo xam ne maanaam dañ koo xamoon ci wetu Ousmane Sonko mu mel ni daal ay xarit lañu woon mais mujj gi daal dafa mel ni euh, day tiire ci kawam rek seen diggante ma am na lu ci jaar xam. waaw xam nga euh, Ousmane Sonko ak Barthélemy Dias Ousmane Sonko lu koy dal rek ab xolam moo koy teg ak dëggu bu dëggoo hmm. waaye nag. Euh, jamono dana toll foo xam ne sunu borom daf lay leeral naafiq yi ndax boo xoolee sunu borom subhaanahu wa taala di wax yonent bi salaa ne ko isaa jaakal munaafiquuna xaaloo nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasul wallahu yasud naan munaafiquuna la kaasibuuna naafiq yi de buñ dikkee naan la yow a yonent bi waaw yàlla de xam nañ ni yow bi hmm. waaye yàlla moom nga xam ne xam na ni yow a bi day mi ngi lay xam ne dañuy kàcc waxuñu dëgg hmm. kon boo xoolee usman Sonko ni nga xam ni moom la ñu baree bare ñëw lalu ci kawam dañoo ñëw ngir seen intérêt bopp mais gëmuñu Ousmane Sonko ndax ñoom ci seen jëm bopp waaw maanaam seen teguwuñu ci yoon ndax xam nga ni maire de Dakar maire de Dakar mm. Barthélémy bi mën na mën naa waat leer na ko naññ leer ñëpp ni mm. bu doon Ousmane Sonko du ci jot mm. kon lim ko lebal ak lim ko fay bokkut Ousmane Sonko nag war naa seetaat bu baax man bu ma soñoon dina gën di gestu ku mel ni Guy Marius Sagna ay nit ñooñu nga xam ne ay nit ñu dëggu lañu mais dafa am ñu bari ñoo xam ne. ñu ngi woon ñu ñu ngi ñëw ci opposition bi. seen jikko dafa yàqu ba noppi. waaw nit nag bu jikkoom yàqoo dëgg la naam nit dana jikkoom dana yàqu mu ñëw ci yow yow mi nga xam ne sa jikko defaru na nga defar ko waaye am na ñoo xam ne jéem a defar seen jikko. yombut. waaw ndax loolu ñoo xatama law ala la wa ala waa wa ala absarihim xisaawa loolu moo ci daje. koo xam ne xol bi dafa gumba. Mm-hmm. nga xam ne xàmmewut lu baax du ko xeñtu bët bi gumba na xol bi gumba na nopp yi gumba na ah. ah, noppi yi du dégg hmm. ku mel noonu ku mel noonu koo xamante ni nga xam ne nga xam ne lu ma jublu wax foofu mooy koo xam ne doxul ci njub ci intérêt boppam rek ah. ci lay dox maanaam réew mi itteelu ko mais boppam moo ko inteel ci ndax boo xoolee sax seen candidat boobu mu naan na Khalifa Sall mu naan naa bokk rek hmm. loolu du waxi gor ci gor du waxi gor ci gor soo xamante ni da ngaa àndoon ak say nawle Mm. tënk seen kàddu nga jekki-jekki ko génn bëgg dugal sa bopp ak lu mën a xew nanga bokk donta bokk nga ba war a bokk donta maam moom war a bokk la ah. waaye ni mu ni mu war a bokkee ak ni mu bokkee bokkut maanaam bokk googu dafa war a nekk loo xamante ni euh, kii bépp dañ ci ànd opposition bi yëpp dañ dañ dañ ci ànd maanaam opposition bi dañ bot duñ beddi kenn waaye beddi Ousmane Sonko ngir moom moom nga xam ne moom day mel ni mu ak bokkam moo ko ñor mais bokk Ousmane Sonko ñoru ko loolu nekkul loo xamante ni lu ma loolu ndax ñoom ñëpp Ousmane Sonko li mu leen lebal. Mm. du loolu. Ah. gis naa nag ci biir opposition bi ñoo xam ne euh, ku mel ni. Euh, Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall waaw gis naa ko muy dugal ay kàddu yoo xam ne damay gis ne. Mm. Ousmane Sonko daal liggéey am mbooloom ba am ko mu bëgg sàccaat moom. Ah. waaw loolu loolu yu bari ci noonu toujours damay gis saa bu Ousmane wax rek mu dugal kàddu goo xam ne. Ah. dafay day taxaw pour pour déstabiliser wàññi waa pour bëgg a bëgg nit ñi bañ a bëgg Ousmane Sonko. wàññi crédibilité wàññi crédibilité am te loolu mënu ko. Hmm. ndax bu taxawee ci réew mi naan ay joolaa. waaw ñoo ñee nañ ñoo ñoo ay joolaa lañ tax usman Sonko lañu àndal. wax mais ñoom loolu sax bu ñu ko waxee sañ nañ ko. Hmm. buñ ko waxee loolu sañ nañ ko gis nga Ousmane Sonko ñi ko bëgg ñu ci ëpp duñu ñu bu ñëwee ci Touba gii. Hmm. ñi ko bëgg kenn ñu ngi ni gàññ. dégg nga. waaw boo demee dakaar gee noonu ko Salika. réew mi ay joolaa ak ay séeréer ak ay pël musu fee am nañu bàyyi yooyu ñuy foye yooyu day taal am réew li am solo mooy doon Sénégal doon doon sénégalais sañ a réew mi réew mi ku dul julli sax yëlif na ko waaw am xam yor ko te boo ko yoree ñëpp ñëpp nekk ci jàmm mais ay ay waaso loolu day am réew mm. li ñuy xeet wi pël la wala xeet wi nangam la loolu baaxul ci am réew bàyyi nañu bàyyi loolu ñuy fowee mm. gis nga am na ci ñoo xamante ni am na opposition yoo xamante ni lii nga xam ne moom la yàlla defal Ousmane Sonko dañ koo nanguwut. waaw ah. nanguwuñu ko ndax koo xamante ni bi mu duggee ci politique yàggut. Hmm. am ci loo xamante ni boo xoolee ci histoire dañuy wax ni 60 yi Sénégal mosut am man ba Sénégal doonee Sénégal sax lay wax. Hmm. ba léegi mosuñu am opposant bu mel ni Ousmane Sonko. Hmm. ku mel noonu nag nga xam ne ñëpp dañ koo bëgg. am ci moom yaakaar mu yorug njubam. nga bëgg a taxaw tilim ba bëgg a dee bëgg koo gàkkal ab deram loolu askan wi du duñu ko nangu moo taxit nag loo ci mën déggi dégg nag ko koo gis mu tudd wax ci moom rek bu noppee ñu wax ci ñu wax ko loo xamante ni dara dara dara du ko jar nañ nangu dogalu bi yàlla hmm. ñoom bu doon bu doon bëgg nañu jub dañuy jéem a ànd ak Ousmane Sonko topp ci ginnaawam ànd ak moom liggéey hmm. waaye waaye Ousmane Sonko candidat la boo xam ne euh, nekk ak moom di wutaat réew mi ci kanamam jàpp ma ne te réew te bëgg réew mi jàpp ma ne loolu lu nekk la lu war a mën a nekk la ndax lépp bopp bu baax. Ah, xanaa bëggul ñeneen ñi bëgg tamit. Ah? ñeneen ñi kat ay. Eh, waaw waaye waaye waaye bu tee yow xam nga ne yow baax nga. waaye gis nga ah. ku la gën a baax. xam nga gis bon nangu ba soxla jàpp nañ ne Ousmane Sonko moo leen a baax tamit. parce que dañoo am seen i ñoom tamit. seen programme xam nañu ne seen i. programme jàpp nañ ñoom ñoo war a développer réew mi. de am nañ droit ci nekk tamit. dama ne. am nañ ci duraa moom Ah. droit moom am nañ ko ci. waaye du bu fekkee réew mooy moo leen yitteel. waaw ah. Ousmane bopp li nekk ci moom macha allah. Hmm? Hmm. ci xam-xam. Hmm. li nekk ci moom ci njub. Ah. li nekk ci moom ak fi mu jot a jaar. jàpp naa ne ku bëgg réew mi ànd ak moom jéem a liggéey ngay def ànd ak moom def ko sa njaatige. loolu ma jàpp naa ne moom moom mooy mooy waaye du caagi nag nii da ngay jéem a da ngay a ber sa sa sa kii bopp ku doon rek ku ne am na ci sag sañ-sañ. kenn ku ne am nga sañ-sañu boo bëggee nekk candidat maanaam nekk candidat jàpp nga ni boo yaajte ne waaye xam nga yow sa bopp xam nga ni Ousmane Sonko fi mën a yóbbu réew yow mënoo ko fa yóbbu loolu ma xam nañu ko ku ci wéet da nga xam da nga xam ne loolu moom ndax mooy opposant bi gën a radical mooy bi nga xam ne état bi moo leen jaaxal hmm. état bi kenn jaaxalu ko ah. ci opposant ku dul ku dul Sonko hmm. kon nag buñ ci bañ dara patriote yëpp daal nañ ci jàpp hmm. boo amee lu baax nag loo xam ne boo xoolee ba Sénégal doone Sénégal ba léegi mësoo koo am. Hmm. nga sàggan ba rëcc ba ñàkk ko. Hmm. ah kon de bay bon ñu xam ne xamuñ fuñ jëm. président Macky Sall de bu askan wi sàgganee ba mu posé candidat. Hmm. Iliman Ousmane Sonko bañ a bokk. Ah. ay wote wote jërutul muy am. maanaam nañ réew mépp maase kon tëdd mu war ci seen kaw lu ko neex def lu ko neex bay te kenn bañ a waxati dara. waaye li ma jàpp te jàpp ko daal mooy Ousmane Sonko ak ak ak Macky Sall du waxtaan mooy mooy la problème bi. la ma la waxoon rek laa lay wax question rek dama naa lan moo war a nekk taxawaayu sénégalais yi jamono bi ak euh, nguur gi tamit ñoom tamit lan moo war a nekk seen taxawaay ci euh, contexte bi ñu toll. waaw li war a nekk seen taxawaay mooy am fulla ak fayda bu joloog di am. wala wala mo na tegu ci dëgg na tegu ci respect maanaam maanaam nekk na nekk loo xamante ni ñëpp a ciy maasa yam te loolu mooy li ci jiitu mooy moom président Macky Sall mu ni du ma candidat Ousmane Sonko mii muy créer problème ci ay Adji Sarr ak Mame ñaam mu génne problème yooyu yëpp teg ko ndax xam ni justice yii li ñuy àtte lépp dara saxu ci peuple bi mooy résist mooy àtte te nag ay bakkan yu tuuru dara àddina jëru ko war nañoo fexe ba ndax fitna xam fu muy tàmbale waaye bul xam fu muy yem aw askan nag boo demee ba ñanga nga jiite ñëpp yow xam lay seen njariñ ak lu seen njariñ nga bëgg leen a not bëgg a jàpp ni la xewoon bu njëkk rek mooy xew loolu amatut askan wi àdduna bépp léegi benn pénc la loo fi dugal yaa ngi ni yor sa sit loo fi dugal léegi balaa ngoon ñëpp yëg ñëpp xam ko kon nañu fexe ba ñu jox respect ci askan wi xam ne ay yor nañu xel te te te bu fekkee bëgg na réew mi bu fekkee bëgg naa dem demin wu rafet waaye Ousmane Sonko daal li ma ko li nga xam ne moom laa koy xelal daal mooy Ziguinchor googu mu nekk bu mu fa jógee wala balaa mu fay jóge na ko teg fu leer nañ. Ah, war na ñëw dem ci procès bi. déedéet procès amu fi procès procès bi jàdd ga yoon dafa yàgg. Hmm. jàdd ga yoon dafa yàgg. da bokkuma ñi nga xam ne naan na wuy ah. waaw ndax wuy ji gi day fekk booba yoon moo ñu supérieur ñun ñëpp. Ah. waaw su fekkente ne moom ku mu kenn du ko kenn du ko faale. lépp loo xam ne ay àqam ñu ngi ko koy xañ te lépp looy àq jàmbur loo xam ne sax du àq jàmbur waaye déclaré nañ àq jàmbur la ñu topp ko hmm. Ousmane sonk tey jii bu ma ko perantoon mu am problème waaw loolu nag day réew bu àggee foofu nag hmm. doonatul loo xamante ni lu ñuy lijjanti hmm. ci droit la ak ci yoon léegi li ñuy lijjanti li fi des nag mooy moom ki jiita réew mi daal moom mooy mooy jàmmal réew mi te mu jàmm jàmmal réew mi mooy mu teg dossier yëpp fi suuf waaw teg dossier yëpp fi suuf te xam ne lim fi jot a def mu bañ ko yàq dem demin wu rafet organiser euh, euh, élection tànn benn candidat boo xam ne bu APR la su ko defee ñi ci des ñi ci des kenn ku bëgg a bokk bokk ku yàlla tudd nga gañe ñu ñu ñu ñu ñu teg la ci réew mi. koo xam ne da ngaa def ay gërëwaay wala nga def ay problème ñu ñu seet nuñ ko lijjantee waaye nekk fii jàpp ni da war a toog ci réew mi lekk ba ba regg ah ci alal réew mi xëy dem. ñu ñu ni nañ nañ administre ñii ñu bëgg administre yëpp yooyu yëpp ngay gis noonu ci koo xamante ni lañ wax ni tuumaal lu moom moom moom la moom la moom la sànq ci ay milliards bari na lool yooyu dafa nekk yoo xamante ni yu ñu war a yu ñu war a bàyyi xel la hmm. maanaam maanaam yu ñu war a moytandiku la li tax ñu war koo moytandiku nag mooy dañoo war a xam ne ëllëg seeni doom dafiy nekk ñu war a ne am way wu rafet kuñ ci falati nga xam ne liñ la fal moomoo ko nga liggéey yam ci sa salaire te bañ ci jël alal réew mi ndax fi ne nii koo gis xelam mi ngi ci gouvernement bi te dara warulu ko lu may sàcc gi ñu sàcc alal réew mi rek hmm. waaw loolu nag dafa nekk loo xamante ni du doxal am réew. jërëjëf hmm. jërëjëf euh, sëñ Moussa dañ lay bàyyi nga tàggatoo rek ñu jeexal waxtaan bi. waaw jërëjëf sëñ Fallou xanaa di la sant bu baax rek di ñaan rek euh, yàlla da yëkkati sa site bi def ko site bu ki am am doole ndax xam nga fi ne nguur gi ni nga xam ne moom lay doxee. Hmm. buñ xoolee ci mujjug mujjug mujjug euh, président Abdoulaye Wade gis nañ ko mel ni Youssou Ndour ñu baree bari jóg. di dal ci kaw Abdoulaye Wade mais fi ne nii kii ñu baree baree bare ñu ngi ne cell te xam nañu ni mag sàll mi lii mu nekk dara du ci aw yoon. Hmm. doole ci la nekk ak jëm fee fekkaat tegaat boppam. loolu nag ay mineur lañu peuple bi ñoo jógal seen bopp si kañ soo daal noonu ñu def nañ nañ buñ ci deltu gannaaw bu boobaa itam. bis bu hmm. yëf yi ta kii bu mu yem si kañ soo dong. waaw ndax li tax am réew daal li tax moom mën a tegu ci yoon mooy da da nga bu ma la respecté wul boom bu ma respecté mm-hmm. waaw nit boo bëggee ñu respecté la da ngay respecté mboolem koo xam ne moom nga séqal xam ne mm-hmm. euh, ci ko jote ci njëkk nga ko jote te bañ a bañ a li nga yor yaa ko moom yàlla yàlla def ci réew mi jàmm mm-hmm. yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm li yàlla na ci yàlla sotti ndox mu sedd waaye sotti ci ndox mu sedd nag dara jiitu ci président Macky Sall mu bañ a xam ne bañ a Ousmane mii mën nañ koo jàppe ku soxor te fekk muy ku lebat mën naa nekk koo xam ne bu toogee sax moo gën ci Ousmane Sonko te jàpp naa ne moo gën ci Macky Sall te jàpp naa ne bu bu toogoon ci mi dana nekk dana dana dana seet nuy doxal réew mi waaye nekk du doon loo xam ne sax dafi nekk di fayoonte ak ak ak ak kii ñaaw njort nag baaxut hmm. waaw nañu nañu nañu góorgóorlu fonk Ousmane Sonko te jéem ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla def muy président de la république yàlla musal ko ci kii ñun daal ñu ngi ci koy ñu koy ñaanal fuñ toll ñu ngi koy jàngal alxuraan ko ñaanal di ko defal ay ay secret yoo xamante ni ah, secret biir la te yàlla rek a tax nag moom ñu di ko def amul leen lu tax ñu ko def loolu yàlla wax hmm. ndax ñun politique taxuñoo jóg waaye nag réew mi dañoo itteel te réew mi comme dañoo itteel ñu bokk ci réew mi war nañoo fexe ba lépp lu war a defar réew mi rek ñu jàpp ca loola jërëjëf sëñ Fall jërëjëf euh, suñ Moussa Jaxate ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaawlu soxna soosu nga xam ne moo nekk wal fajiri Ah. muy coro moom nga xam ne dafa tollu diggante ñu ko jàpp ko ne ko ràpp tëj ci kaso bi mhm. loolu rek dèjà xam nga loolu metti na am ci koo xamante ni euh, ab jullit nga vraiment waaw euh, jërë ngeen jëf di leen sant di leen gërëm di ko sant di ko gërëm di joxe dig daje aussi ba beneen yoon